sonnal nañ bàyyi jàmbur liggéey na ba sonn dem na di noppalu nañ ko bàyyi mu noppal ñu ci des continuer rek ande loolu laa ci xam waaw waaye nag euh, jël jël nit rek naan nañ wut attekaay ak nangam attekaay bu ko atteeg ndax euh, ñi fi ne mënuñ ko atteeg loolu lépp coono rek la coono rek la indi ak coow ak xëccoog euh, rek te amul solo da ngay dem a dem a dem ba sa date jeex sax datu lan date xam ne <laughs> moom nga war toog day dem ba jeex su jeexee nag nooy def doo liggéey dara boo defee réew mi ne la dara nu ñu bàyyi xëccoo bi na ñu bàyyi fayantu bi na ñu bàyyi sedd te ñu fas yéene liggéey na ñu bàyyi xëccoo bi bàyyi féewale bi bàyyi lépp mu sedd te ñu fas yéene liggéey man de loolu laa ci xam waaw ah, bu ñu fas yéene liggéey daal moo am solo waaye yàlla nee na bu ngeen defee noonu lu baax yàlla nee na daal sax leen sax leen ci njub njub daal moo am solo baax na saa ci fas yéene liggéey googu ñoom ñu ngi ko yaakaare ci assemblée nationale pour bu ñu fa amee majorité parce que bu ñu fa amul majorité dañu jàpp ni que lu ñu teg ci loi wala règlement opposition bi mën na ko contrecarrer mais mais beneen parti bi opposition bi tamit dañoo bëgg li nga xamante ni ñoom ñoo di seen majorité pour que ñoom tamit lépp loo xamante ni état teg na ko te neexu leen ñoom tamit ñu contrecarrer ko est-ce que jàpp nga ni ci loolu noonu Sénégal mën na normal ah du Sénégal du normal parce que ñoom jàpp ñu ne ay sénégalais lañ buñ jàppoon bu fekkoon ne ñële malien lañ ñii di sénégalais ñii di xëcc ñii di xëcc waaw kay waaye ñëpp sénégalais lañ waaye waaye ku ci nekkul ci njub bàyyi leen ko ñu teg ko ci yoon ki nekk ci njub nekk ci njub loolu mooy dëgg waaw waaye li ngeen def du dëgg waaw léegi ko léegi luñ bëgg bu président tegee dara ñu teggi waaw parce que ñoo nekk ci majorité bi nekk ci majorité tax rek nga toog rek léegi lu président te nga teegi président woote waat na pour pour bu léegi bëgg amee majorité mën a doxal li muy doxal ne ko nit ñi jàppale rek ne ko nit ñi jàppale jàppale seen bopp jàppale réew mi pour mu mën a dem waaw ndax bu amul majorité du dem te kon réew du dox réew mi ci galang-galang rek lay ne galang-galang galang-galang yu kenn xamul ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ndóol yi bëgg a dee ñuy sonn rek waaw ñu jekk-jekk nañ ba pare ñu sonn sonn nekk ñoo fay ne sonn boo ñun ñoo fay ne di sonn nañu nañu bàyyi ñu voté ñi ñi jàppale président ba mu am ndam jeex na su amee ndam nag doxal li mu bëgg a doxal waaye ku amul ndam doo mën a doxal assemblée bu fekkente ne yow amuloo majorité bi kële mu am majorité bi akon ah, doo doxal dara waaye boo amee majorité da nga mën a doxal kon ne nañ ko jàppale rek waaw am na solo euh, saa ci biir loolu dañoo gis ki nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye Dany heure boo xamante ni premier ministre génn na euh, def déclaration <laughs> def def li nga xamante ni moom moo di discours wala sax déclaration euh, bu dee midi midi bu dee midi midi une minute dina génn wala midi trente gis nañu ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Fatou Ndiaye mu koy corriger mun nañ ko wax parce que nee na ko nga jël sa yoonu bopp te bàyyi fu président fu Ousmane Sonko waxee wala Diomaye Faye nga génn riposté naka nga jàngate loolu man daal lima ma ci mooy mooy li Bougane waxoon rek nañ ko waxtaanee mooy émission bii nga xam ne mi ngi koy def ci RFM Sen TV Asafurlah nar a collecté li nga xamante ne moom moo di mën nañ ni cagnotte la wala sax euh, li nga xam ne Sénégal sax ñu ko jàppale li nga xamante ni moom moo di yalwaan euh, loolu lépp sax nekk na loo xamante ni si Sénégal yi seen biir ñoom ñoo koy waxante euh, ginnaaw bi nga xamante ne wax na ni que dafa bëgg koo xamante ni am nga cent francs wala 1000 francs koo xamante Sénégal lam daa bu mel ni man yorul dara ñi nga xamante ne ay fonctionnaire lañ ay ministre lañ 1 la ñu commencé ba sax bu ñu amee 3 millions ñu jox ko xaalis boobu pour que mu mën a battre campagne am am na ñoo xamante ne d'accord ñu ak moom naka nga jàngate loolu ah mais kuy def luñ d'accord amul kuy def lu ñëpp d'accord amul ñii dañuy d'accord ñii duñu d'accord waaw ci li ci kanam rawul bët nañ bàyyi ba pare li ci lii loolu amul solo campagne lay def ñu ne dañuy yëlwaan quoi ku dul yëlwaan ku yaa ko gis a ah, ñun ñëpp a di ndax bu gàmmu ñëwee wala nang nga am sa gàmmu baa nga am sa conférence yaa ngay téléphone yaa ngi ci ministre yi yaa ngi ci député yi yaa ngi ci am xaalis di wër pour ñu dimbali la pour ñu dimbali la donc ku dul wut dimbal amul yàlla rek ka dul wut dimbal amul yàlla rek ka dul nañ ni ñu ko dimbale loolu la wax ngeen dimbale ko ñi am nañ ko joxe ñi amul nañ nañ muñ te ñaan am rek parce que lépp ci réew mi la ah, ñi am nañu joxe ñi amul nañu ñaan yàlla am waaye réew moo xam ne daal lu yëngatu rek weddi rek contre contre contre contre daal moom da bëri na waaw ah, contre daal moom bëri na fi daal waaw ah, bu dee lu yëngu ñu contre ko lu yëngu ñu contre ko a waaw baax na bu dee yelwaan kay ku ñu fi yelwaan bëri na yelwaan yi téléphone yaa ngi fi yelwaan téléphone yaa ngi fi waaw woote nangam sama nangam ngi loo ci xam woote sama nangam ngi loo ci xam woote sama nangam ngi loo ci xam waaw baax na incha allah danaa ci taxaw bu xarit tabaski yi ñëwee noonu gàmm noonu korite noonu kor sama suukaru kor noonu ah waaw ñëpp a yëlwaan kay yëlwaan la rek. dégg nañ ci ay biir waxam sax mu ni moom comme ça ñi nga xamante ni ñoom ñoo di nguur gi génn ni ñu doon doxale du ko doxale di jël xaalisu réew bi di ko campagne di ko jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay minute ay kii ñi nga ni ñoom ñoo leen di topp leen jox ay t-shirt ak yooyu dafa bëgg moom xaalis bi mu koy defee mu lew eh, kee génne xaalisam kee génne xaalisam ñëpp boole jox ko moom mu def campagne moo ko gënal muy def ah waaw ba baax na rek gannaaw moo ko gënal mu def loolu bu lii sottee kay baax na su lii sottiwul na. Ah, dina de xanaa mu xool ci affaire <laughs> sottiwul du sotti di. waaw moom kay bu li sottee dana baax bu sotti sottiwul na mu dellu ci campagne yi xaalisu réew mi rek parce que xaalisu réew mi rek la fi ma ne moo fi nekk. xaalisu réew mi moom. tànk bàyyi wuñu di ko jox ay nit. ñu koy def seen poche. naan réew maa ngi dox. du sotti. réew nañ ko delloo ci alalu réew mi. dañ ko delloo ci réew mi waaw yoon yeeg paj meek tali yeeg euh, courant beek ndox meek téléphone yeeg yooyu yëpp nañ ko ci delloo waaw buñ ko ci delloo rek mu baax waaye buñ ko delloo ci poche nit ñi du sotti parce que ki nga jox ki nga jox ci poche am moom mooy kaas naan wuyi li ma wax dëgg la nañ def nii nañ def naa fekk déedéet du dëgg li dëgg daal mooy na ñu jël alal di delloo ko ci réew mi waa réew mi wut seen alal yi bopp nag ñoom itam def seen poos ah loolu mooy dëgg waaye jël alalu réew mi euh, pasar pasaree ko jox ko ñii jox ko ñii jox ko ñii ku ne wëy rek nga jox ko ne ne noo doo ko jox mel ni loo moom du loo moom lu réew mi moom la li réew mi moom nag nañ ko delloo ci réew mi loolu mu wax nag dëgg la nañ ko delloo ci réew mi bañ a def niñ daan def moom du campagne yi noonu dëgg la waaye itam nag na fekk li mu wax mu koy defee noonu waaw ah, na fekk ñu koy defee noonu buñ ko defee noonu daal a baax waaw su fekkee ne lii muy woote yàlla defal na ko ci ndam baax nañu campagne yi loolu su ko ci yàlla defaloon ndam itam xaalisu réew mi lay mujj jël <laughs> amul amul solo xaalisu mi rek lay mujj jël amul benn amul benn problème d'accord alors oustaz suñu question moom moo di xew na ci dëkk bi la dañoo gis benn xale bu jigéen boo xamante ni dañu ko rey foofu ca Ngor euh, ñu wax ni que ca Ngor voilà ci néeg bu mu nekkoon ñu wax ni que ki ko rey moom benn xale bu góor la boo xamante ni da doon séq ak moom maanaam xale bu jigéen bi da doon jaay boppam ñu jotee ci loolu nañ ko defee xam naa peut-être que bëggewu ko noonu léegi mu daal di koy rey léegi ki ko rey ban àtte la la ko islam àtte. rey ko ah, ah islam islam kay àtteem soriwul islam nee na an nafsu bi nafsi rek. waaw ah, ku rey la rey. islam daf ne ku rey la rey waaye niñ dellu ci. lan mooy cagatu. cagatu moy lan. leen sonnal nañ bàyyi jàmbur liggéey na ba sonn dem na di noppalu nañ ko bàyyi mu noppal ñu ci des continuer rek man de loolu laa ci xam. waaw ah, waaye nag eh, nit. rekk naan ni ñu attekaay ak nangam attekaay attekaay bu ko atteeg ndax ñi fi ne mënuñ ko atteeg loolu lépp coono rek la coono rek la indi ak coow ak xëccoog euh, buuxante rek te amul solo da ngay dem a dem a dem a dem ba sa date jeex sax waaw datu lan date bi nga bi nga xam ne <laughs> moom nga war a toog day dem ba jeex su jeexee nag nooy def doo liggéey dara boo defee réew mi ne la liggéey dara na ñu bàyyi xëccoo bi na ñu bàyyi fayantu bi nañu bàyyi lépp mu sedd ti ñu fas yéene liggéey nañu bàyyi xëccoo bi bàyyi féewale bi bàyyi lépp mu sedd te ñu fas yéene liggéey man de loolu laa ci xam waaw bu ñu fas yéene liggéey daal moo am solo waaye yàlla nee na bu ngeen defee noonu lu baax yàlla nee na daal sax leen ci njub sax leen ci njub njub daal mu am solo baax na Moussa ci fas yéene liggéey googu ñoom ñu ngi yaakaar yaakaaree ci assemblée nationale pour bu ñu fa amee majorité parce que bu ñu fa amul majorité dañoo jàpp ni que lu ñu teg ci loi wala règlement opposition bi mën na ko contrecarrer mais mais beneen parti bi opposition bi tamit dañoo bëgg li nga xamante ni ñoom ñoo di seen majorité pour que ñoom tamit lépp loo xamante ni état teg na ko te neexu leen ñoom tamit ñu contrecarrer ko est ce que jàpp nga ni ci loolu noonu Sénégal mën na normal. ah du normal Sénégal du normal parce que ñoom jàpp ñu ne ay sénégalais lañ. buñ jàppoon bu fekkoon ne ñële malien lañ ñii di sénégalais ñii di xëcc ñii di xëcc waaw kay waaye ñëpp sénégalais lañ waaye waaye ku ci nekkul ci njub bàyyi leen ko ñu teg ko ci yoon ki nekk ci njub nekk ci njub loolu mooy dëgg waaw waaye li ngeen def du dëgg waaw léegi ko léegi luñ bëgg bu président tegee dara ñu teggi waaw parce que ñoo nekk ci majorité bi nekk ci majorité tax rek nga toog rek léegi lu président te nga tegi président na woote waan na pour pour que léegi bëgg amee majorité mën a doxal li muy doxal ne ko nit ñi jàppale rek ne ko nit ñi jàppale jàppale seen bopp jàppale réew mi pour mu mën a dem waaw ndax boo amul majorité du dem te kon réew mi du dox réew mi ci galang-galang rek lay ne galang-galang galang-galang yu kenn xamul ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ndóol yi bëgg a dee ñun ñooy sonn rek waaw ñu jekk jekk nañ ba pare ñu sonn sonn nekk ñoo fay ne sonn ko defee ñun ñoo fi ne di sonn nañu nañu bàyyi ñu voté ñi ñi jàppale président ba mu am ndam jeex na su amee ndam nag doxal li mu bëgg a doxal waaye ko amul ndam doo mën a doxal assemblée bu fekkente ne yow amuloo majorité bi kële mu am majorité bi ah kon doo doxal dara waaye boo amee majorité da nga mën a doxal kon ne nañ ko jàppale rek waaw am na solo saa euh, ci biir loolu dañoo gis ki nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye Dany heure boo xamante ni premier ministre génn na euh, def déclaration <laughs> def def li nga xamante ni moom moo wala sax déclaration euh, bu dee midi midi bu dee midi midi une dina génn wala midi trente gis nañu ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Fatou Ndiaye mu koy corriger mun nañ ko wax parce que nee na ko nga jël sa yoonu bopp te bàyyi fu président fu Ousmane Sonko waxee wala Diomaye Faye nga génn riposté naka nga jàngate loolu man daal li ma ci jàngale mooy mooy li Bougane waxoon rek nañ ko waxtaanee mooy émission bii nga xam ne ñu ngi koy def ci DFM Sen TV